conseil constitutionnel jàppul. man j'estime que a des risques mooy euh, politiciens yi bu ñu d'accordul ci suñu république bi. Mhm. institution de la république yi benn bu ci nekk di jox sa fonctionnement normal mais les force dont parlait le président Macky Sall sont toujours là. mm pour mettre les les gens à l'ordre parce que. Euh, man loolu du woon contexte rek. contexte lan ñun yàlla ñu musal ci soldats ba ñuy jël seen loxo dugal ko ci nguur gi. xam nga lu tax li xew ci réew mi yeneen réew yi li xew ci yeneen réew yi nañu bàyyi ne mënul xew Sénégal c'est vrai qu'on a une armée républicaine mhm. c'est prouvé mais euh, maanaam euh, boule de neige mun na di raam di raam ba ne carax suñ mhm, bi réew te loolu li koy indi mooy politiciens yu bañ a d'accord politiciens yi ni ñu d'accord balaa soldats yi di leen atte mhm. te loolu c'est facile nañu bàyyi les lois de la république ñu leen di appliquer nañu bàyyi institution yëpp ñu fonctionner. Mhm. su fekkee ne dem nañ ba mu am ay jafe-jafe waaye ñu def dialogue toog waxtaan toog waxtaan mën na nekk. pour mhm. pourquoi. Euh, mais ñu fi nekk xëy na légitimité bi ñu am ni ñu faloo moo tax ñu yaakaar ne soxlawuñu kenn. attention Macky Sall a été élu à 58 pour cent pour cent ñoom yegguñu fa ah. mois. Mhm. <laughs> te au bout de quelques mois Macky Sall euh, euh, mu ngi commencé par. maanaam oran boobu. c'est vrai ñoom déjà. désaffection bi may commencé di lire ci réseaux sociaux yi par rapport ak certains jeunes loolu wane na ne war nañ def attention 54 pour cent 55 pour cent c'est normal pour une élection présidentielle. Mhm. un plébiscite ça tourne autour de 70 pour cent et plus 68 pour cent. loolu tu es à l'abri voilà. oui mais amul benn homme politique mal quel que soit suffrage bu ñu tu es confortablement assis parce que tu es en face de réalité. Mm -hmm. or bi ngi leen tenir la. boo nekkee devant les réalités ce discours-là va changer. et ça a changé. et, et on, ça, ça commence à changer. Ah, voilà entre ce qu'ils disaient ak ce qu'ils font. absolument yaa ngi wax